ba la ba xari ñewagul gëmal yàlla say xar buy ñëw du fi wàcc sa buntu kër lay wàcc voilà loolu dong laa la bu ko a wax ah. ok coupé la ragaj ayo ko ba du lu khalifa jani mom ren ma ko rasa rasal khadim mbay ci def yi rek lay bi ci Sen mono bok um fukki kala bang bok rek itu dinu sing mono bok kari ren du la ah kim wuuu bulan kola yakuna la ne illallah ah Sama ko yun. Wow, karmo. Ran mo mako ko naraban. Dumisok ka di saan ni. Hindi na alam ka ni. Wow, man siya dun tumabog ko niyo di doon ay mumili ni kar. Para sa makarmo? Aha, ayaw nak sa kar din ninyo. Lolo mom yaay yung superior. Defal na la ci ben muy ñent Tam yow ya mom xarit. Sama yaay dama ko utal xar sama papa. Ak ya. sama ay way ak sama xar sama kuy sa kuy waaw ah. mat na yow bo soxloon xaaj ma jox la xaaj yàq ñak ba faté wo 600 ma la ah du ko faté du ma ko fàtte alalu mbooloo la ah alalu mbooloo ah, bàyyi jaxal mu yak man ak samay nawle la nekkal ci koñ bi mu kenn du la yokk ah. kenn du la ñaar dégg mm-hmm, loolu dafa leer kenn balaa délai bee jot daal jox ma 600 ma séddale leen ko ndax ñoom itamit ci la ñuy dimbaliku la jënd xaar amul benn problème fekk beneen mu ko seqal bàyyi borom nga mel ne Moussa Diop Moussa Diop Aliou. waaw baax na kon ba ci kanam. cinquième laa la xool tey jii. yaay mama waa. Ajaabira. Ajaabira. Ajaabira. Ajaabira. Ajaabira. Ajaabira. yow na lool ba pare. cib. mama. mama. waaw looy def ci biir. kaay. waaw waaw li nga sol nii lu mu doon. lii dara ñëw ci. loolu yi bu la ngelaw duggee nga dee nii. lii bu la ronoo nga yàqu bu duggee extérieur nga yàqu. maman doomu nit ku baax day sol lu yiw. lii colin gi xamoo ne colin bu bon la. sa yaay mënu ko jënd lépp laa la ci kaay bi. yow loo bëgg a ñawlu ci koor gi. jëmmal rek. tabaski ñu nga. waaw maa sonn nag xar yi jàmbur yee tax. waaw wuy ma. xam nga lan la ma danteel ak juppi waaw yow doo am chance ndox ruu gi ay mël fa la dese mël déglu rek mël fa yeeg mël lous ki ñu jël ma dagal la ci ndoxit ma dagal la ci ndoxit ne gum teer bi mom abna ko ki mesure mu siisu xam nga ni jox ma maas fi bax na golf nga koy def wala gabonaise xaaral hmm. rek ya na la ñawal mesure lu ma nag loolee ko dag xam yow fi nga toll ak ak sa âge kii baat kuy kuu mooy baat kuu. Eh, ko dee. xooluma la. Hmm. yaa ngi ce que dama ko def ba ja baatu jàmput jaatu seen so yu ngand yow de doo am jële kii dënd kuu dindi sa loxo yi ajal pokkotaan yi ubbil waaw. poitrine bombe bombeel bombeel pour pour fémiture bi buy jël place am maman bombeel sa dund bi yow lan nga bëgg li moo tax bëgguma xale yu góor yi ngay dem ñu ne jëlal mesure dañuy ànd ak pédicure maman sa dund bi jël na lu desal ci yow daal ci taxaw large large bi rek laay jël mu jeex taxaw très bien am Parce que Daniel Bessigné chance waaye bu góob góoru duñ ci sentir lu ne sentir dañ ko